CJ、CJ、CJ、甘い CJ、インスタントバーバー CJ。Thank you. Soru oldu. Ben te dugut wax yi politicien doon wax waaye wax yi nit ko am vision di xool dëkkam di ko xalaatal di seet ku mel nan la yaakaar ci situation yi ni ci dëkkam te ko mu ñëw ko moo tax ba nga ñëwee bu waxee ci yow ci xol lay waxee te dugut